asalaamaaleykum coalition Gueule Tapée Sall male male bu gànna gànna yow ngir ma faam ci quartier bi faam bi nga xam ne ginnaaw yàlla ci suñu kàttan ko ci yaakaar naa ne fii moom sax dañu am ndam fi ñu dalee baax fi ñu def ñëpp tey suñuy mbokk rek mbokk rek suñu sëriñ suñuy xarit kon suñu xel dal suñu xel ni fii incha allahu rabbi si jëlee day nekk nii wax ni opposition bi nag ñu ngi fi demul fenn on reste vigilant on incha allah rabi ñu ngi dem yàlla kon ñu ngi sant waa Medina par avance sant waa Thiès xam ne aventure bi commencé ba léegi ñu ngi jàppale discours bi gars yi dégg nañ ko discours bi gars yi adopté nañ ko te tey jii ils ont appliqué le discours ils ont appliqué la à la à la consigne de vote comme quoi gox yu bees trop c'est la CESA crédit